moo Sénégal ku doon nelaw na nga yeewu man yeewu naa lu tax Baye Moussa ñëw ak koor gu bees déglu rythme nee ko kër gi ala badoola ala como kër Baye Moussa boy ala badoola ala como moo Sénégal ku doon nelaw na nga yeewu man yeewu naa lu tax Baye Moussa ñëw ak koor gu bees déglu ne ko kër gi ala baadoola ala como kër baay Musa Boy ala baadoola ala como mo Sénégal ku doon nelaw na yeewu man yeewu naa lu baay Musa dafa ñëw ak gu bees déglu rythme bi ne ko kër gi ala baadoola ala como Goodbye, Musaboy. Ala Badola, Ala Chomo. Mo Senegal, ku doon nelaw na nga yeewu man de yeewu naa